ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Encore X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 Digital Store, améliorez votre ko gën. Hmm. Hmm. bari tuub. Hmm. néew too tooña ko gën. waaw kii nga xam ne moom itam coow li bari na si dëkk bi lool te li nga wax si wax ji dafa am solo adduna bi ñëpp seen programme yi femm nañ ko yàlla def na ba màggalu Tuubaa gi moom euh, dina am màggal gi commencé ñu ne dina am ba pare ñu bëgg koo xajamalaat di indi ay wax ak yooyu itam kooku itam lan nga koy lancé. maanaam seytaane seytaane moo moo dul moo dul bàyyi moom. seytaane hmm. moom boo bëggee am ndam fi mu ne fii màggal gi jàllul ba ñëpp am jàmm hmm. ñi doon yàq toujours seen xo ñu ñi ñu ngi ñu ngi déglu rek bañ am fuñ bëgg ba taxlu saytaane rek la ñu waa lépp seytaane la ndax boo juboo la am lu baax xam nga li am adduna sépp kenn amu ko fexe ba ba màggalu Tuubaa rek des ci jul ubbi nañ jumaa ji def nañ lu ne tëj ñi nangam nangam ba sëñ Tuubaa may ñu màggal nañ Daaru Xudoos war a màggal bu Tuubaa kon nañ nañ nañ nañ jëlale yenn yi dafa am yoo xam ne sa matu ko ñi ñuy joow matu ko billaay du dara dañuy jël nag amplifier rajo yeeg ku ne comme nii rek di amplifier affaire yi ku ne ku ne diggante kii rek maanaam nangam déedéet tolluwul noonu tolluwu ko ci sëñ bi ko ci ndaw si tolluwu ko ci ñi ñi ko bokkal ñoom ñëpp nañ déggoowaat bañ a tasaare seen alali bu ñu leen nax ñun kër goo fi gis dañoo àndandoo fexe ba dajale seen alali bàyyi. moom bañ a roos bu leen tàqale seen alali bàyyi seen bàyyi am na ndam ba noppi de ñi ci des yéen a des jërëjëf. waaw sëñ bi itam dañuy rafetlu li nga def bëkk démb fekk murit boo xam mu ngi jënd nag yu bare bare bare nga ne ko ñu nga ko defal nga ñu ko euh, santale sëñ tubaa loolu itam nag am nit ñi ñu ngi si wax ay wax itam ñu bëggoon nga am leeral gooñ ci leeral tuuti leeral gi mooy man fu ma san fu ma gis ku ne ma damay liggéeyal sëñ Tuubaa ma nag gisuma ndaw si hmm. ndaw si mosuñoo gisee mosuñoo nuyoo hmm. te ndaw si néew fi hmm. ci dëgg-dëgg. Hmm. ma nga ca Mali. Hmm. waaye fu ma fu ma romb kuy defal sëñ Touba ma ne la jaajëf. ak ku mën a doon kontaan ak ku mën a doon. jërëjëf sëñ Cheikh Ndigal nga xamante ni <laughs> mooy leen doon ñëpp nag rek nga xam ne moom la doon leeral rek ñu koy ñaanal bu fan gu ànd ak rek.